tànku dëggal dooleel démocratie mhm. dooleel les libertés e ku xam loolu ci man di ma suivre depuis vingt ans dans l'opposition mhm. xam nga ni lépp lu mos a jóg dem ci doomu aadama ak ku mu doon rek taxawaay bi laa ci mos a am euh, bii nag bi mu dalee ki nga xam ni umpul kenn sama diggante ak moom mhm. muy le président Ousmane Sonko di xarit di aussi allié ci coalition Yewwi Askan Wi dafa jaadu lépp lu ma doon def ci terrain bi lépp lu ma doon def ci politique ma ñëw taxaw bokk ak moom bis bi comme ni ma ko defee ci bés yëpp yi nga xam ni ñoo fi jiitu ñoo fi jàll loolu moo wala tànk yi taxaw démocratie taxaw notre frère le président Ousmane Sonko taxaw les libertés xam ni ñun dañoo gëm ni Sénégal démocratie bu mag la et que ku ne war nga bay sawaar ci anam bu mu mën a doon ba démocratie boobu ñuy continuer di ko chanter partout dans le monde et je pense que tey jii nii ak li ñu li ñuy xaar comme décision loolu dina gën a mën a firndeel lu ni mel kon daal ñoo ngi xaar ñu réhabilité ko mu mën jot ses fiches de parrainage. Merci. voilà mu nekkoon euh, kii di euh, Déthié Fall euh, Déthié Fall bi nga xamante ni aussi